waaw gis effectivement gis nañu benn euh, convocation d'une la convocation d'une réunion euh, euh par euh, membre de benn Bokk Yaakaar effectivement la CITB a été omise là l'explication officielle moo doon on a invité les partis waaye ñun dañ jàpp ni man bu fekkee ne euh, quand même je suis un leader politique de benn Bokk Yaakaar bu ñu jàppane je suis le vice coordonnateur de benn Bokk Yaakaar quand on développe une stratégie même bu fekkee ne man sama mouvement bokkul ci euh, mise à exécution de cette stratégie mais war naa bokk au moins ba ñuy réfléchir loolu c'est c'est important donc euh, on considère que c'est une émission euh, on considère que ça va être rectifié donc il n'y a pas de problème ñu ngi xaar.